suñu yitte mooy ñun dañoo jógoon ne kat li ñuy def dañ koy tàmbalee ci daara yi loolu itam li ko sabab lu dara lu gis nañ ne ñooy ñi nga xam ne ñoo gën a doole te ñoom liñ digle def nañ ko ba noppi parce que daara yëpp tey jii confiné nañ seen i donga daara kenn gënu ci gën a te loolu xañ na lott nañ ci lu ñuy toppatoo daara yooyu ñu ne woon dañu koy def itam tax sàpp ci ñaan ci barkeb alxuraan suñu borom suturaal nu tin sunu kilifa baax yi fi nekk ba jeexal ngir bi Sénégal jeexal ko mboolem ci ci àdduna si kon moo taxoon tey ñu xëy di wër daara yi di nga xamante ne bii mooy ay ndimbal yoo xam ne danañ ko def di sant nag baax a baax ki nga xamante ne bii moo di Cheikh Mouhamadou Moustapha ndax moom moo wane yoon ndax dafa ñaan ba noppi daal yëkkati ko bor yu jox ko président de la république ndax que maa la ko jàppalee ci nu ñuy xeexee jàmm ji kon kooku dafa war a aw kon képp ku def taalibe képp ku def dëkk ci réew mi dundu doomu aadama yitteel la war ngaa jóg seq ay jéego ci yoon woowu ngir jàngoor ji xam ne ñun ñëpp ñoo war a maase ànd xeexandoo ko di rafet rafetlu jéego yi nga xamante ne bii ak dogal yi nga xam ne président teel na ko jël loolu ñëpp itam Sénégal ànd ci ak moom muy ku jël politique kilifa diine yi muy kilifa aada yi kenn desul kon tey jii mel na ne Sénégal def na benn bopp. ñépp maa si ànd di xeex jàngoro ji loolu nag foog naa ne suñu boroom danañu tim ba wax nañ ko léegi alhamdulilah kenn loroogu fi ñu ñaan yàlla rek kenn bañ fee soo am ndax su amutoon sëriñ mu taxaw ci dugub xanaa manees naa weddi ku nekk ba mu des ki nga xam ne moo fi toll te li nga xam ne yëkkati na ko def ko ci loolu rek tegtal la ci ne feebar bi lu am la feebar bi lu am la sëñ Sam wax nu ko léegi ndax bu dee tubaab bi ñoom àdduna mënuñu teel te lu jëm ci wàllu koom mënuñu teel te tey jii seen économie yëpp dakkal lañu dara dara dara doxatu fa dëkk yëpp tëj nañu ko kenn duggatut kenn gënatut kenn jaayatut benn production amatut kon loolu day tegtale ne feebar bi lu nekk la ndax ñoom tey jii ay milliards yu du jeex lañ ci pert bu ñëwee senegal gii tey boo demee port Dakar du xutut nga xam ne kon loolu ay milliards yu du jeex moom la ci état bi président de la république dem ba ndekat feetu 4 avril amatul muy feet gi nga xam ne moom lañu gën a fonk ñoom kon loolu lépp day tegtale ne tawat ji amul lu ñuy sikki sàkk ci ne am na ak te kenn amul intere wala sax mën naa ne kenn ñëwul di xëy di wax yu mel noonu ci ay caaxaan ndax fi itam ay talax bi fu nekk kenn xamu leen ci ay ci ay caaxaan kon nag li nga xamante ne mooy li ci des moo di gannaaw bu ñaane ba noppi ñu nag fagaru jël suñu ay matuwaay bu ñu gisee ñu naan nit ñi nañu toog seen liggéey dañoo gis ne ba nga xam ne tawat ji fa la njëkk a jaar gannaaw ba ba nit ñi toogee seen i kër ci la tawat ji tàmbali wàcc boo demee réew mel ni Chine waaw mais bu ma faral di génn 11 millions de personnes ñoo fa nekk. dañoo tëj ñëpp ne kenn génn bu kenn génn. tey jii ña nga tàmbaliwaat reprendre seen économie réew ma ngi tàmbalee doxaat ndax tawat ja ma ngi wàññi ko kon baatu tawat ji amu fi moom ci dëgg-dëgg loolu moom nañ ko ne teg fi suuf ndax loolu musiba musiba la dafa naa même ñoo ko doon wax ñëpp dañu ci sax dellu nañ ci ginnaaw ndax xam ne léegi tawat ji lu nekk la donc kon foog naa loolu ay rumeur la woon rek waaye jàpp naan tey jii weesu nañ foofu kon tey fi ñu toll mu ñun ñëpp ñu àndandoo nekk benn xeex jàngoro ji xam ne moom rek moom la teg suñu bu ngeen gisee mboolem leader politique nga xam ñoo xamante ne bii foog naa ne mos ñoo ànd nguur gi ci dara tey jii ñoom ñëpp ñoo jog ne président ñu ngi gi ginnaaw te ñooñu foog naa bu ñu defee loolu loolu si beneen tegtal la buy wane ne tawat ji du am na te ay jeexaat kon nag buñ ko caaxaan li nga wax léegi nag ñun dañ ci am double responsabilité bu njëkk bi xëy na mooy wala du waaye beneen bi aussi moo di en tant que ku bokk njabootu Serigne Touba moo tax nag ba nit ñi dañoo war a wax ñoom dañ leen a aussi war a jàppale moo tax ba tey jii ñu xëy di def te jàpp ne incha allah dañ koy ànd ak ñoom lii jéego bu njëkk seq la waaye dina am yeneen jéego eh, président woo na leen pour ngeen dugal seen loxo ci biir ndax yow fas nga ci suuf sa loxo comme ni leen ko président sant ci wàllu non bon ci ay wàllu ay koppar yi ngeen war a génn maa ngi si la wax ko joxe incha allah dana ko joxe te tey ji li ma ñàkk fi ëpp na loolu te du ma yem ci def la incha allah